bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi al anbiyaai wa imaami almursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lanaa illaa maa callamtanaa innaka anta al alimu alxakim اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp waxtaanu fajar bi ci waxtu wi ngeen di ci ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé ci wàllum xalar gi jaawo jallo gannaaw buñ santee buur yàlla subhaanahu wa taala ñu ngi julli ci sang bu tedd bi di ar rasulul mustapha sallallahu wa sallam ñu bokk sant yàlla buur bi nga xamante ne moo ñu xéewalal ñu fekke bés ni ki tey mu nekk beneen bés ci suñu dund ginnaaw bu ñu buur yàlla yenkewale mu mee ñu xéewal ju mel ni nelaw bañ doon nelaw ci waxtu yu néew ci ginnaaw gannaaw bu mu ñu mayee xéwal bu toll ni ñu war a mën a dund yeneen bis yu bees kon lañu war mooy ñu sant ko moom buur yàlla tabaraka wa taala ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma yàlla doyloo ba ko ci xeet wi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jaamaam yi mu yónni ko ci askan wi yonent boobu di ar rasulul mustapha salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi moo ñu baaxee ci maana adkaaru istayqaaz min annawm baat yañi nit ki war a tudd gannaaw bu ko yàlla xéewalalee ba mu yeewu ci nelaw baat yoo xamante ne war na kaa wax jamono ba ko buur yàlla yenke mu yeewu ci nelaw baat yooyu mu war a wax mooy alhamdulillahi alladi axyaana baada ma amaatana wa ilayhi nushur ba tax na ñu nit ñu ngi leen koy baaxee di leen ko yeggee ngir ñu bokk ko ñu fas yéene ko waxtaane fas yéene si jël bind waaye fas yéene si jël dars bu toll ni buur yàlla tabaraka wa taala nag doyul waaye cant daal yokku ko dara ñàkk kaa def wàññiw ko dara xanaa du cant bi ci yow dong lay dellu ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku yalla may mu yeewu ci nelaw lii la war yow jullit bi mooy nga sant buur yàlla mala may kado xéewal ba toll ni nelaw dañ ne woon bu dañ ko doon jaay ña koy buñ ko jënde ña ko mënuta ñooñu dañuy ñàkk waaye ndegem kadola boo xamante ne buur yàlla tabaraka wa moo ko yenkeewal doomu aadama bi ko ñàkk ki am ñépp ci bokk yem di jëfandikoo xéewalu yàlla jooju di nelaw ba tax na sang bi nee na képp ku ko yàlla xéewalal beng ci def astuut boo ci yeewoo danga nga war a ñaan ñaan bi mooy alhamdulillahi alladi mboolem xeetu cante yu kawe ñeel nañ yàlla buur bi nga xamante ne axyaana moo ma delloo sama ruux baadama amaatana gannaaw bu mu dogalee ci man dee bu ndaw te mooy nelaw te wa ilayhi nusuur ci moom yàlla la ñuy dellu gannaaw bu ñu jeexale dund bi ci kaw suuf si kon nga sant yàlla moom mi la xëywalal nga am la nga nelaw tuuti gannaaw bu mu dogalee ci yow la nga xamante ne mooy dee bu ndaw te nga ne wa ilayhi nushur ci moom yàlla buur wi tabaraka wa taala la ñuy dellu mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak ci ni njaboot ba léegi ñu ngi leen di fàttali ne yéen a ngi ànd ñun ci waxtaanu fajar ci réew mi fm 97.5 xanaa di leen fàttali ne rek des na suñu diggante ak ashura vingt-trois jours vingt-trois jours moo des suñu diggante ak Ashura te bés ni ki tey di lundi ji nekk ni tey mooy le dix-huit ci weeru Zilhijja le dix-huit ci weeru Tabaski fukki fan ak juróom-ñett tey mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru Zilhijja ci weeru Tabaski di leen fàttali ne rek moo tombe gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mille quatre cent quarante cinq ans bés bi di tey ñu xam ne des na suñu diggante ak ashura di tamxarit ñaar fukki fan ak ñett ñu ñaan yàlla suñu borom ñu ngi koy séntu muy ñëw ñu ngi koy séntu muy dëkkmal yàlla buy ñëw nañu fi fekk buy dem yal nañu fi bàyyi waaye lépp lañ fa ñaan yàlla yal na ko buur yàlla nangu amin ya rabbal alamin xanaa ñu digtal leen ñaan bi nga xamante ne moom lañu fas yéene ubbeek yéen waxtaan bi mooy yow jullit bi del ñaan sa boroom ñaan boo xamante ne moom dong moo ko moom te moo yore ci moom dong la nekk ba tax na del tàllal sa yoxo di ñaan yàlla di kone ne allahumma inni audu bika min ilmin la yanfaa ñaan bi moo ne lu tekki mooy yow julit bi del tàllal sa yoxo ñaan borom bi tabaraka wa yore lanka bëgg a ñaan ni nga ne ko allahumma bur yàlla inni audu bika man sa jaam bi de maa ngi làqu yow maa ngi làqu fa yow yàlla ngir nga musal ma min ilmin ci xam-xam joo xamante ne laa yan fa du njariñ xam-xam bu dut njariñe yàlla nga ma ci musal yàlla nga ma musal ci xam-xam ba njariñ kon xam-xam ba dut njariñ julit bi war na kaa war a mën a muslu ñaan ko borom bi tabaraka wa taala mu musal ko ci ndax buñ ne xam-xam bay njariñ moo tax ñuy wax waaye bu ne xam-xam bu de badut njëriñ nag loolu taxut ñuy wax ba tax na yow jullit bi del dëkk sa loxo bi léegi di ñaan sa boroom ne ko rabbana atmim lana nuurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir dil ñaan borom bi tabaraka wa taala ne ko bur yàlla ma ngi lay ñaan yàlla nga matal leeraayu bés te nga jéggal ma ndax yow yay aji am kattan ci lépp moo tax nga di ko wax ne rabbana suñu boroom atmim lana yàlla nga ñu matalal nuurana leeraay ba ñu dig keroog bés te tamit waxfir lana yàlla nga ñu jéggal innaka ndax naka yow yàlla ala kulli shay'in ci bépp mbir ah qadir ku ci am kattan bu mat sëkk nga waaw kañ yàlla saa su ne day bëgg jaambi di ko delloo man-manam ak màggaayam donte jaambi lott delloo yàlla man-manam ak kattanam waaye lam la ci joxoñal ci téere bi lam la joxoñal ci téere alquran ne nanka waxee ni yonent bi baaxee ko ci ay ñaan yamu baaxe askan bi dee ku tuddee nii aaya bi mu ngi ci suratu tahrim nga ñaan buur bi yàlla tabaraka wa ni ko rabbana suñu borom atmim lana nuurana yàlla nga ñu ma nga ñu matalal suñu leeraay keroog bés pénc waaye bi léegi ñu ngi sàkku fa yow yàlla waxfir lana yàlla nga ñu jéggal yàlla nga ñu sutural innaka ala kulli shay'in qadir ndax yow yàlla ya am kattan ci bépp mbir amul kenn ku ñu war a matalal suñu leeraayu bés pénc ku dut yow yàlla yow dong yaa ko def ndax yaa am kattan bi ci sa nguur gi la nekk ko ñun la kay ñaan yàlla nga ñu man yàlla nga ñu matalal leeraayu bés pénc nga bañ ñoo bàyyi ñuy tiñix tiñix ci yu bés pénc yàlla buur bi yow mi am kattan yow mi am doole yow mi man leeral kala neex ci lindemaayu bés pénc ñu ngi lay ñaan atmim lana nuurana yàlla nga ñu man ñu nga ñu matalal leeraayu bés pénc yàlla nga ñu matalal leeraayu bés pénc ndax amul kenn kuy leeral bés pénc ku dut yow yàlla waxfir lana yàlla nga ñu sutural jéggalaa bu mag bi ci sa nguur la nekk waaw aji sutural jaam bi yow dong la amul kenn ku am kattan bay leeral bés ci lëndemaayu bés pénc ku dut yow yàlla amul kenn kuy jéggal baakaaru jaami bés penc ku dut yow yàlla kon ñu ngi lay ñaan rabbana suñu borom atmim lana nuurana yàlla nga ñu matalal leeraayu bés penc ndax amul kenn ki am amul kenn ki ko mën a def ku dut yow waaye nag waxfir nga ñu jéggal suñu rëcc-rëcc innaka ala kulli shay'in qadir ndax yow yàlla yaay buur bi nga xamante ne yaa am kattan ci lépp yaa am kattan ci bépp mbir kon yàlla ñu buur yàlla nangul ñaan bi nga xamante ne moom lañ ko ñaan ni amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ñu wéyandik yéen bi léegi ci waxtaanu fajar bay fii ci Rewmi FM 97 point su ko defee ñu ubbi ki yéen xadiisu yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci lamu ñaaxaate ak njariñ ba nekk ci njàngum alqur'aan kuy gëm yàlla bay jàng alqur'an naka la ko yonentu bi melale sallallahu alayhi wa ak way gom yàlla ba du jàng alqur'an na ko bi melale sallallahu alayhi wa sallam ak naafiq buy jàng alqur'an naka bi melale sallallahu alayhi wa ak naafiq bu du jàng alqur'an naka yonentu bi melale sallallahu alayhi wa sallam ñeenti melokaan ya yonentu bi melale kay jàng alquraan ak kad ku dul ki bugg a xam ñeenti melokaan yooyu ñal na ci yonentu bi jublu sallallahu alayhi wa nang ñu mee nopp ci waxtaanu fajar bi di jaar fii ci Rewmi FM 97.5 bi iznillahi subhaanahu wa taala ngir ñu bokk njëriñu ci ngénneel ba nekk ci njàngum alqur'an qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mathalu almumini alladi yaqra'u alqur'an kamathali al utruja reyhuha tayib wa taamuha tayib yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na melokaanu way gëm yàlla ba dëkkee di jàng téere yàlla bi di alqur'an sang bi nee na kooku melokaanam moo ngi mel ni fruit ba ñu naan papaaya yonent bi nee na guu bi neex na waaye cafka bi tamit neex na waaw melokaanu way gom yàlla bay jàng alquraan mu di ko settantal mu tënk boppam ci lépp li ko alquraan digal waaye mu géema sori lépp li ko alquraan tere yonent bi nee na melokaanu way gom yàlla boobu mu ngi mel ni fruit ba ñu naan papaaya neena na bi neex na waaye am na cafka bu neex tamit waaw boo koy lekk dangay am guub bu neex waaw bu la xeeñee tamit xet bi naqaliwul xet bi neex na noonu la yonent bi melale way gom yàlla bay jàng alquran mu daldi ñu baaxe ñaareelu melokaan mu ne wa masalul mumini alladi laa yaqra'u alquran ka mathali tamr laa riha laha wa taamuha xulu nee na melokaanu way gëm yàlla badul dul jàng alquran nee na kooku melokaana mu ngi mel ni tàndarma tàndarma de amul xet waaye guu bi neex na lool ndax saf na suukar ak la ci nekk yonent bi daal jox ñetteelu melokaan mu ne wa mathalul munaafiqi alladi yaqra'u alqur'an masalu rihaana rihuhaa tayyib wa taamuhaa mur sallallahu alayhi wa sallam nee na melokaanu naafiq bay jàng alqur'aan nee na kooku de melokaanam mu ngi mel ni lat koloñ parfum nee na xet bi neex na lool waaye cafka bi dafa wex mu daal di jox weneen melokaan mooy juróomeelu melokaan bi mu ne ñu wa mathalu almunaafiqi alladi laa yaqra'u alqur'aan ka mathali alhandala laysa laha riihun wa taamuhaa mur muttafaqun alayh sallallahu alayhi wa sallama nee na melokaanu naafiq bay du jàng alqur'aan nee na kooku melokaanam di mu ngi mel ni garab ba ñu naan xandala xandala daf di garab joo xamante ne ñu ne jaziratul arab lay faral di meññi falay lay saxe waaw garab bi dafa bari dëj garab bi dafa wex xat te amul xet waaw moom ñetti danger la boole garab bi amul xet te dafa bari dëj te cafka bi dafa wex xat xadis bi buxaari ak muslim dëppoo nañ ci xadis bu wér la mbokk yi yal na jàmme yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot xam ngeen ni ñu ngi vacances xam ngeen ne école tij na waaye ngalla waaye daara vacances yaa ngi ubbi daara vacances yaa ngi tijji képp koo xamante ne njàngom alquran soxal na la ci sa njaboot jëlal sa doom yóbbu ko fu ñuy jànge alquran ndax nga bokk ci melokaan ba yonentu bi joxoñ ne melokaanu jullit bay jàng alquraan nee na kooku mu ngi mel ni fruit ba ñu naan papaaya nee na xet bi neex na lool waaye cafka bi tamit neex na lool waaw kii day jàng alquraan mu doon ku gëm yàlla gëm na yàlla tënk na boppam lépp li alquraan digle waaye sorel na boppam ci lépp la alquraan tere te mu doon kuy settantal alquraan yonent bi nee na kooku mooy aji gëm yàlla bay jàng alquraan melokaana mu ngi mel ni fruit bañu ba ñu papaaya xet bi neex na waaye cafka bi tamit neex na mu daal di ñu joxoñal ñaareelu melokaan nee na kii aji gëm yàlla la moom de sawarut di jàng alquran ànd loolu ki gëm yàlla la yonent bi daal di ñu jox melokaanam nee na kooku mu ngi mel ni tàndarma waaw ah, tàndarma amul xet waaye ñépp mankoone gu guu tàndarma de kenn mënu koo laam-laame ne neexul guu bi neex na lool te saf na caf ko bu saf-saf waaw yonent bi daal ñu jox ñetteelu melokaan ci ki nga xamante du jàng alquran ànd ak loolu naafiq la waaye day jàng alquran moo tax mu ne ñu wa masalul munaafiqi lladi yaqra'u alquran melokaanu naafiq kii de naafiq la naafiq mooy ki nga xamante ne bu jullit yi jógee mu ànd ak ñoom bu ndoonu jullit yi jógee mu ànd ak ñoom kooku moom la yonent bi joxoñ fii nee na kooku moy naafiq moom mu ci diggante ñaari kuréel ña gëm yàlla ak ñu gëmut yàlla moom ci diggante boobu la ne mu doon benn melokaan boo xamante ni kenn mënu koo qualifié ci kuréelu jullit ñi waaye kenn mënu koo qualifié tamit ci kuréelu noonu julit ñi kooku la yonentu bi melale fii ne kooku mooy naafiq nee na melokaanu naafiq bi nga xamante ne day jàng alquraan moo ne kooku boo ko déggee muy jàng alquraan mbiram dina la yiim lool danga naan iscey allah waaye yonentu bi neena melokaanu kooku mu ngi mel ni parfum mu ngi mel ni parfum parfum nu mu neex neex ne kenn du ko naan kenn du ko lekk kenn du ko def sa lekk waaye kenn du ko naan tamit waaw ànd loolu moone ne xet bi neex na lool waaw waaye cafka bi dafa weqat waaw parfum moom ñëpp d'accord ne xet bi neex na loolu kenn mënu ci am sikki sak xanaa danga naan xet bi neexuma te xet bu neexul dina neex keneen waaw noonu la yàlla bindee doomu aadama yi la nga bañ keneen nangu na ko li nga bëggul la keneen bëgg waaw parfum ñëpp mànkoo ne xetu parfum neex na lool waaye teg ko sa rek doo ko mun a wanaasu di nga ko yàbbi de ndax defaruñu ko ngir ñu di ko jëfandikoo ci lay dem ci biir yonent bi daal di ñu tegal melokaanu juróomeel bi mu ne ñu wa mathalul munaafiqi alladi laa yaqra'u alqur'an melokaanu naafiq bi nga xamante ni kii dee naafiq la du jàng alqur'an yoonam nekku ci alqur'an ànd ak loolu jikkoom bi jikkoy naafiq la yonent bi neena na kooku melokaana mu ngi mel ni garab bu ñu naan xandala laysa laha rihun wa taamuha mur amul xet te dafa bëri ay dëkk te tamit cafka bi weex xatt la def kon mbokk yi nañ leen bokk njëkkalante ci melokaan bu njëkk bi fa yonent bi ne matalul mumini alladi yaqra'u alquran ka matalul utruja riixuha tayibun wa taamuha tayib nañ leen bokk njëkkante daw samp suñu xel géema dab melokaanu way gëm yàlla boo xamante ne dafa sax dafa daroo di jàng alqur'aan dafa sàlloo di jàng alqur'aan moom alqur'aan muy la muy wéttaliku yonent bi nee na kooku melokaanam mu ngi mel ni fruit ba ñu naan papaaya papaaya ñépp xam nañ ne xet bi neex na lool waaye cafka bi tamit ah macha allah neex lool la def waaw bu ñuy defar papaaya boo koy xeeñ dinga xam ne ah meññeef ba ñuy defar nii a ah, xet bi neex na lool waaye nag buñ la ko defaralee ba mu jekk ñu jox la ko nga di ko jëfandikoo dinga xam ni kii daal ngoog noonu la ñuy gisee jikko way gëm yàlla bay jàng alquraan ndax moom boo ko gisee ci jëmmam da ngay xàmmee mandargay alquraan boo ko gisee ci jëmmam dangay xàmmee màndargay gëm yàlla ci moom lii gis-gis la ba nga jëf ci moom xool ba nga xool jëmm wuy gëm yàlla ba saxoo di jàng alquraan boo koy gis di ko bëgg boo koy gis di ko layek waaw comme niñ koy waxee boo koy gisee nga di ko bëgg di ko di ko di ko naw jox ko gëdd jox ko kër bu dee jikkoy ku baax moo nekk ci sa xol boo gisee way yàlla ba taqook alquran dànkay bëgg boo jëflanteek moom nag oo oh, nga gis jikko ju noobul bi nga xamante ne mooy jikkoy alquran waaw moom la yonent bi melalee papaaya bi nga xamante ne xet bi neex na waaye cafka bi tamit neex na ñaari bénéfice ngay am ci fruit boobu waaye ñaari bénéfice ngay am ci way gëm yàlla ba xamante ne dafa jàng alquran mu di ko dunde alquran nee na nañu sanj suñuy gët ñu bañ a xool lu ne moom foo ko fekk day saxoo gaddul basar alquran daf ne wa awful ahda ida ahadtum na ngeen matal kóllëre ba ngeen ko fasee ba noppi kooku da ngay gis ne à chaque fois toujours day doon kuy matal kóllëre bu mu fas ak nawlem su ko defee nga gis ki nga xamante ni ki gëm yàlla la waaye ànd ak loolu mu ngi sàmm wanteeg jikko yi alquran tëral lépp lu ko alquran joxoñ fala ne lépp lu ko alquran tere bàyyi na ko sore na ko doo ko fa fekk kooku la yonentu bi melale comme fruit bi nga xamante ne xet bi neex na waaye cafka bi tamit neex na wa amma ñaareelu melokaan bi nga xamante ne mooy ki mënul ta nekk ci première position fexeel deuxième position bi moom bu mu la raw ñetteel be quatrième bi moom yooyu moom wax nuñu ko waaw ñaareelu melokaanu way gëm yàlla ba dul jàng alquran moo tax mu ne wa masalul muminu ledi laa yaqra'u alquran wa masalul mumini ledi laa yaqra'u alquran ka masalul tamr laa riixa wa taamuha xulu nee na melokaanu way gëm yàlla boo xamante ne kooku de sawarul di jàng alquran yonent bi nee na melokaanam mu ngi mel ni tàndarma tàndarma ñëpp mankoone a ah, amul xet waaye cafka bi de ñëpp xam nañ ne cafkay tàndarma moom a ah, macha allah cafka bu neex la si ko defee boo ko gisee da ngay gis ne kii ku gëm yàlla la waaw ku gëm yàlla la di ko naw di nga ko bëgg di ko sopp waaye jëflante bi daal léegi-léegi mu nekk uh, up and down comme niñ koy waxee léegi-léegi mu am lu mu wone lu féete waaw li féete kaw waaye léeg-léeg mu wone ci doxalinam li féete suuf waaw daanaka day doon koo xamante ne jikko ju baax da koy da koy da koy rëccale waaye safaanu jikko ju baax tamit léeg-léeg da koy rëccale waaw su ko defee ànd ak loolu ku gëm yàlla la waaye dangay gis ne yenn saay du teg tànkam du teg doxalinam ci ndoxalinu Alquran ndax saxoowu di jàng Alquran waaw léegi-léegi tamit ah mu nekk ci mu nekk ci la ko téere alquran digal ci maninam ak num ko mënee waaye nag ah li ci gën a bëri daal mooy day doon koo xamante ne méngoo doxalinam day xaw a juunoo ak la alquran tëral ndax lu ko ko yóbbee mooy saxul di jàng alquran su ko defee yeneen melokaani naafiq bi nga xamante ne yenentu bi dakaa melale comme parfum kooku moom taxut ñuy wax waaw beneen melokaanu naafiq bi nga xamante ne yenentu bi dakaa melale comme garab bu wex am dëj amul xet kooku moom taxut ñuy wax su ko defee kon ñun yëpp nañ leen bokk mankoo géem a jël royukaay bi nga xamante ne moom la yenentu bi sallallahu alayhi wa melale ne melokaanu jullit ba gëm yàlla topp ci mu saxoo di jàng alquran kooku mooy melokaanu furi ba yonentu bi ne mu ngi mel ni furi ba ñu naan papaaya xet bi neex na guu bi neex na waaye melokaanu jullit bi nga xamante ne moom de du jàng alquran nee na kooku melokaana mu ngi mel ni tàndarma tàndarma amul xet waaye guu bi neex na lool su ko defee lii lenn la ci ngéneelu njàngu alquran lii lenn la ci ngéneel ba njàngum alquran am ñu ngi ci daaray vacances nañ leen jël suñu doom suñu sit suñu jarbaat yi yóbbu leen ñu jàng alquran ñu xam la seen diine wax ci téere boobu su ko defee ñu doon ñoo xamante ne ëllëg ci biir buñ fi nekkul sax ko defee ñu di ñu jàngal alquran ñu di ñu ñaanali yàlla allahumma ighfir li walidi allahumma ighfir lahum xeetu ñaan yooyu boo jàngalul sa doom alquran di ko mën di ko xam su ko defee ñu ngi leen di ñaax di ñaax suñu bopp nañ leen jël suñu takkandeer yi suñu tuut tànk yi yóbbu leen ci daara vacances yi ñu jàng alquran moo gën ñu bàyyee leen seen bopp wala ñu bàyyee leen noon bi këf leen yóbbu leen di leen feccoloo wala di leen defloo loo xamante ne njàngum alquran moo gën mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi saa iliina mawla jalla wa ala an yajcalana min alladina yastamicuuna fa yattabicuuna axsana allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih illahumma a'immatana wa wulaata umuurina allahumma ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha